xam ngeen jafe-jafe yi nguur nag dafa tàmbalee sonal askanuk réewum Sénégal daaxle jeex na ci góor ñi ak volcano volcano nee na saraax ci réew mi boisson la boo xam ne aphrodisiaque la baax lool ci góor goo xam ne da ngay gaaw a yëg sa bopp waaye tam performance moom daanaka zéro formule la boo xam ne doo ko gis feneen waaye tam ingrédients yoo xam ne cent pour cent naturel la volcano nekk seen allié bi gën ci biir néegu sëy yi volcano dina tax ngeen mën a yëg seen bopp te ngeen ko yëgee dégg jàmm dana leen jox sañ-sañ ak kàttan ca lal ba dana tax bëgg-bëgg kay yaay bañ gaaw a sa bopp gi volcano da koy xeex waaye tam ñi nga xam ne ñoo am jafe-jafey jur volcano day mooy seen saafara da ngeen di yëngal bouteille bi jël benn dose benn waxtu laataa ngeen di séq te bu ngeen ko ñemee xam ni ter du pom de terre boisson 100 pour cent naturel la amul additif amul colorant amul effet secondaire te mënta wàññi dara seen war gu yaram ay chimiste ñoo ko saytu liggéey ko ci laboratoire mën a essayé leen volcano boisson aphrodisiaque la boo xam ne naan dégg jàmm ko dippee ngir nga mën def traitement boo xam ne mukk jafe ne kay da koy dégg rek ñeenti bouteille ngay daal di jënd te boo ko jëndee tàqalikoo jafe-jafe nguur a fa yàllaa eh. ak volcano kër gi neex xumbute dagan njaboot gi barke ñu door xibaar yi dooree ko ci waa Barcelone rawatina doomu Sénégal bii nekk ca club boobee di Mikayil Ngor fay tey jii ci sunu revue de presse ñoo ngi leen di wax ni ni Deni Olmo amal na réunion ak waa Barcelone sport nag ñëw na ci réunion boobee nee na réunion boobee nag nekkul woon mbiru Dani Olmo képp mbiru doomu Sénégal bi tamit bokkoon na ca ndax moom mii di Mikayil Ngor fay agent wam ki ko jiite mooy papay Dani Olmo waa Barcelone waxtaanee nañu ay mbiram bëgg-bëgg bi ñu am moo di yokk contrat wu doomu Sénégal bi ba noppi yokk salaire bi ñu koy fay aj ko ci équipe A bi nga xam ne saison bii di ñëw day dem ci équipe A doxal loolee bokk na ci réunion bi amoon démb kon waa Barcelone bëgg-bëgg bi ñu am moo di yokk contrat wu Mikayil Ngor fay yokku li ñu koy fay ba noppi aj ko ci équipe A bi xibaar boobu esport moo ko xamle ñu jugee ci Mikayil Ngor fay ak bëgg-bëgg boobee waa Barcelone am ci moom dem ca waa Manchester United ñoom nag dañoo bëgg doomu Esloveni bii te fowuñu ci ay mbiram gone gi ab attaquant la ma nga ca RB Leipzig di doxal Benjamin Sesko la tudd gone gii waa Manchester United li ñu bëgg moo di jëlee ko ca RB Leipzig xaatimal ko contrat yóbbu ko ci seenu club mu kujjee foofee ak Rasmus Højlund ndax jàpp nañu ne bu ñu amee gone gi am Rasmus Højlund ku fa nekkul rek morom mi mën naa taxaw ca attaque ba doxal Daily Mail nee na jamono ji ñoo ngi càmbar ay mbiram te waxtaan door na ci diggante ñaari kër yi ñu juge ci Benjamin Sesko ak bëgg-bëgg boobee waa Manchester United am ci moom jël doomu Angleterre bii di Greenwood jamono ji nag ma nga ca Xetafe di doxal waaye club bu ñu naan Manchester United ñoo ko moom Manchester United nag li ñu bëgg moo di weccoo ak waa Juve yuufe jox leen seen défenseur bi tudd Bremer ñoom waa Manchester United ñu jox leen gone gii di Greenwood jamono jii ñaari club yi ci loole la ñuy waxtaan ngir Greenwood jugee ca Xetafe gi ko mën Manchester United able dem ca Juve Juve jox leen défenseur bii di Bremer nekk doomu Brésil Gazzetta dello Sport nee na ñaari club yi ngi waxtaan ci mbir moomee ñu jugee ci Greenwood ak bëgg-bëgg boobe waa mën Manchester United am ci moom dem ca waa AS Monaco xibaar bii nag neexut ndax seen milieu de terrain bii nekk doomu Russie tudd Golovin dafa am blessure bu métti l'équipe nee na lu mu gàtt-gàtt doomu Russie bi dina toog juróomi ayu semaine yoo xam ne du dugg ci terrain football kon moom daanaka saison wam jeex na xibaar boobu nag neexul ci waa AS Monaco ndax taxawaayam ci milieu de terrain ba am na solo lool muy Golovin waaye dina toog cinq semaine door a mën a dugg ci terrain football xibaar boobu l'équipe moo ko xamle. ñu jugee ci waa AS Monaco ak seenu xabaar bu naqari jël doomu Canada bi tudd Jonathan David moom nee na Napoli. doomu Canada bi noppi na ngir jógee ca Lille dem ca Napoli jàppale De Laurentiis mi nga xam ne mooy seenu président su fekkee Victor Osimhen jógee na ca Napoli doomu Canada bii mën naa am mu dem fa wuutu ko fa te jàpp nañu ne nag bu saison bi jeexee dinañu jubo ak waa Lille ngir gone gii di Jonathan David jóge ci Ligue 1 ba dem ca Serie A ba doxal Gazzetta dello Sport nee na gone gi sax ak Napoli jubóo nañu ci salaire at mu jeex noppi nañu ngir fay ko trois millions d'euros xibaar boobu Gazzetta dello Sport moo ko xamle. ñu jóge ci Jonathan David ak bëgg-bëgg boobee waa Napoli am ci moom dem ci classico bi àdduna gépp di dimanche incha allah Real de Madrid mooy dalal Barcelone match boobee nag Liga la soxal waa Liga bi nag siiwal nañu ki nara arbitré match boobee du nag arbitre bu mag la muy Sotogrado moom mii la ñu tànn ngir mu arbitrer match boobee dimanche di dox ci diggante Real de Madrid ak Barcelone bu 19h jotee lay door ca Santiago Bernabéu ñu jugee ci classico boobee ak ci ko nar a arbitrer waaye Barcelone moom duñ leen bàyyee gum ay daan nag tegu na ci seeni ndodd li ko waral moo di kat Ousmane Dembélé keroog bi mu demee fekki waa Barcelone dañ ko doon yuuxoo ci wàllu racisme maanaam boddi konte ci xeet bi waa Paris xamee loolee nag ci la ñu amaloon ab plainte loolee jàpp naa ni waxoon nañu leen ko ay daan nag tegu na ci kaw Barcelone ndax daan yi FIFA teg seen kaw moo di dinañu fay ab xaalis xaalis bi ñuy fay nag dina toll ci trente deux mille euros deux mille euros nag xaalis bu bari la ci franc CFA ndax dina mat 20 millions francais CFA ak lu toftal loolee la waa Barcelone war a jox UEFA li ko waral nag moo di yuuxu yi ñu doon yuuxoo Ousmane Dembélé nee nañu boddi Conte ci wàllu xeet maanaam raciste da caa am bi mu amee nag waa Paris ñoo ko saytu amal plainte bi waa UEFA saytu ko ñoom tamit teg ay daan Barcelone ñu jugee ci waa Barcelone ak daan yooyee ñu teg ci seeni ndodd dem ca waa Real de Madrid ñoom nag seenum xel dala ndee gum na li ko waral moo di kat am na jour yu bari yoo xam ne laata match bi doon door démb bu ñu amoon carton rek demi-finale aller yi duñu ko mën a football ñooñee bokk na ci Bellingham Kamavinga ba ci Vinicius waaye kat loole dañu ko dindi kon mën nañu football demi-finale aller bi ak xel mu dal waaye bu dee xarbaqaal mi am démb carton moom demi-finale aller bi du ko mën a football maanaam bu Real de Madrid di jàkkaarloo ak Bayern de Munich ca match bu njëkk ba moom Carvajal du ca mën a bokk waaye bu dee ñi ma njëkk lim muy Jude Bellingham Vinicius ak Eduardo Camavinga carton yi leen toppoon waa UEFA dindi nañu ko kon mën nañoo football ak xel mu dal ci match bi ñu war a jàkkaarloo ak Bayern de Munich ñu jógee ci carton yooyee wa UEFA dindi waaye Real de Madrid duñ leen bàyyee gum xam ngeen ne démb bi ñuy jàkkaarloo ak Manchester Manchester City am na ñaar ñu ko yeggaliwut woon li ko waraloon nag bokk na ci ay blessure yu ndaw muy Vinicius ak Carvajal bu ñu sukkandikoo ci Marca yéene kay nag